kon yooyu tarixa tijaniyya di tëral muy ay facette ci biir zikr par excellence di lumière u salaatul fatiha da ngay gis ni kon dafa am yoon boo koy jaare dafa am yoon boo koy jaare gis nga ëttu Muhammad bi moo gën a naqadi xool li ngay tànn juróom-ñaari jukko ya jëf juróom-ñaari jukko ya dellu ci baatin bu sell jóge ci baatin bu sell bu leer yey visité ba yàgg di consulté wu seen bopp bay dellu ci borom jamono ba borom jamono di apprécier wala mu ni bii cheikh ni cofeel laay laaj waaw maa xam nag nan laa bëggee nga sopp waaw boo ma soppee ba ma nangu ko yaa ngi ci sama ëtt waaw moo taxoon mag ñépp ba ñu ko yëgee ku ci ne wut nga këyit bind ci moom te ku ci nekk la nga bind sa cofeel nga doon wane ci nekk wut nga këyit te ku ci nekk bi ngay bindi sa cofeel nga doon wane seen way yëpp dangay yëg ni cofeel moo ko dangay da ngay yëg ni cofeel moo ko